yi ay ñoñoom di àddu jëmale nag ci engagement bi nga xam ne rek am na ko ci doxal politique ngir ñaawlu lépp loo xam ne rek ay injustice la yu ñuy faral di amal ci langue politique gi yër leen boobee yëglekaay des ba tey ci réew mi ko di quotidien mi àddu jëmale tey jii nag ci lu jëm ci wàllum exploitation pétrole bu Sangomar yéenekaay bi ne bari lu njëkk yi nag léegi tey mu daal di yegg si ginnaaw bi ñu koy xaar boobaak léegi société bii di Petrosen nag ma ngay fësal xibaar bu neex bokk na ci fileeki fan rek nag daañu am li nga xam ne rek moo di baril pétrole yi njëkk yi xam ne rek dana jógee ci wàllum Sésame bi Thierno Seydou Ly mi nga xam ne rek mooy directeur bu Petrosen moo xam ne lu ñu mel kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci ab forum boo xam ne rek moom la ñuy amal jamono ji ci réewum France jëmale ko ci ni ci wàllum énergie fii ci déndu Afrique lu jëm ci wàññi teg njëgu dund gi ak lu ñeel denrée de première nécessité xam ne nag ne yëf yi léegi tey ñu daal di koy lancé ministre bi nga xam ne rek moom la ñu dénk wàllum industrie ak commerce nag di Serigne Gueye Diop ma ngay dalal xelu góorgóorlu yi nag jëm ci wàññite gi nga xam ne rek moom la war a amal ñeel dund gi gi nag yéene kaay bi ne jëwriñ ji ma ngay xam ne nag ne ménage yi filee ki fan rek nag daañu am li ñu bëgg ndax gouvernement bu Sénégal jamono ji nag ma ngay liggéey ngir def kéem kàttanam bu ko defee nag yëf yi mën a wàññeeku ma nga cay waxtaan jamono ji ak importateurs yi exportateurs yi naka noonu patronat beeg boulanger yi lu jëm ci payoor yi nga xam ne rek moo soxal opérateur privé yeeg yi nag yéene kaay bi ne fanweer ak juróom-ñaar ci ay milliards nag nguurug Sénégal teg na ko ci taabal ji jamono ji nag 24 heures feelu ko ne campagne agricole 2024 2025 nag am na ay jéego yu yees yoo xam ne rek nguurug Sénégal mi ngi koy jéem ca na mu ko xamlee woon nag ngir yombal lépp loo xam ne rek mooy liggéey bi ñii di producteurs yi nag jëwriñ jii di Mabouba Diagne nag ma ngay teg ay njëg yees jëm ci wàllu semence bi waaye subvention yi nga xam ne rek moom la fas yéene gunge ñii di béykat yi les éco yëglekaay xëyee leneen mu jëm nag ci li nga xam ne rek moom mooy teg gi ñu teg loxo kii di Bah Diakhaté bi ñu koy toppee lu jëm ci ay xibaar yu wérul ba teg ko loxo imaam Makhtar nag moom moomee yëglekaay bi ne ci kër soxnaam la ko fekk ci ndimbalu téléphone am boppam ab commando bu dikk moo ko fa daal di jëlee bi 6 heures du matin jotee foofee ca Castor Le Témoin moo yëglekaay addu moom it ci teg loxo gi ñu teg loxo activiste bii di Bah ngir lu jëm ci wàllu diffamation bu mu amal jëmale ko ci premier ministre bu Sénégal yéenekaay bi ne jamono ji nag sagara ngi xeeñ ci diggante APR ak Pastef Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndaw nag tey jii daañu janoo kii di procureur de la République l'info yëglekaay ne ginnaaw bi ko waa division des investigations criminelles dégloo moom Bah jamono ji waa APR nag def nañu dank ñoom ñëpp nag fas yéene ngemb taxawu ko ay kilifa yu mag a mag yu bokk ci boobee parti bokk na ci ay ancien ministre ay député Pape Malick Ndour Abdou Mbaw Pape Gorgui Ndong Seydou Gueye Issakha Diop Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp ak seeni militant fees nañu dellu ca dikk ngir jàppale seenub naataango yéene kaay bi ne lu nu mel nag ma ngay wane ne opposition bi jamono ji nag jug nañu taxaw ngir janoo ak Jomaay ak Sonko Vox Populi nag xam ne ne Bah moom mais ak imam Cheikh Tidiane Ndaw nag tey jii ci àllarba ji nag lañ leen fas yéene defeere lii quotidien xam ne ni nag moom activiste républicain boobee nag delluwul ginnaaw yootaa ci kàddu yi nga xam ne rek moom la yëkkati ma ngay xam ne ni daal ma ngay assumer lépp luy ay déclaration yoo xam ne rek def na ko jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko Abdou Mbaw ne nag lii moom ay intimidation la rek waaye duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg amnistie di sàkku jamono ji nag ci nguur gi nga xam ne rek moo fi nekkoon ngir ñu bañ a daanu ci piège bi nga xam ne rek moom la nguur gi fi jugee daan doxalee te it nag di sàkku ñu daal di dépénaliser nag lu jëm ci délit de diffamation te bàyyi kii di baajaxate mu daal ñibbi këram vox populi la ñuy des ba tey ak lu jëm ci statut bu chef de l' nag jamono ji nag coow li nee na kur ëllëgu politique bu Amadou Ba nag yu bëri dellu siwaat nañu ci niki tey jii yéenekaay bi ne dafa war a soppi ab taxawaayam moom Amadou Ba te dëggal boppam ne mooy opposant bi njëkk nag fas yéene janoo ak ngurug Jomaay ak Sonko di joxe ay coup tey nangu ñu ko koy delloo soobu dëggantaan ci wàllu politique bi ngir wone boppam ci terrain bi kii di professeur Serigne Thiam bu UCAD ma ngi koy càmbar ci biir bennoo bokk yaakaar ak képp kuy homme politique bu ñu àndal moo xam ngay PDS wala parti socialiste nag dina jafe lool ci ñoom ngir nga dëggal sa bopp nag ngir a nekkaat au devant de la bi nag waaye yi nga ne rek moo tukkee ci élection présidentielle bi ne sérieux bi nga xam ne la Amadou Ba àndal abnégation bi nga xam ne rek moom li nga xam ne rek moo ko mu am leeral sénégalais nag lu jëm ci tuuma yi nga xam ne rek moom la ñu ko doon tuumaal ci jamonoy élection présidentielle yi Suzanne Camara ne ko Amadou Ba ci boppam dafa war a gëm boppam te dafa war a xam ne moom mooy njiital opposition bi li mu war a def nag jamono ji nag mooy mu fexee nekk ca kanam waaye gëw ma ne daal amati na place ca biir APR yéenekaay bi di laas moom xëy samp laaj ne diggante Amadou Mame Diop Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba kan moo war a wutu Macky Sall ci bopp APR yër leen boobee yëglekaay tàggat yaram la ñuy àddu nag ak stade yëglekaay mondial 2026 éliminatoire yi ñu war a amal ci weeru juin yéenekaay bi nag ne yeen gaynde nag la ñu war a amal euh, ngir jàkkaarloog RD Congo wala Mauritanie Rewmi Sport xëyee tey ji nag ak kii di Toni Kroos mi nga xam ne ma ngay annoncé ab retraite am foofee ci Real Madrid wax ci Les Échos moom tey ji nag dellu suwaat na ci attouchement yi nga xam ne rek moom la benn nunu doon amal ci benn bébé bu am onze mois yéenekaay bi ne nunu boobe nag ñaari atu kaso la ko daal di tëj la république nag daa sàkk woon ñu tëj